Ndeysaan arbitre bi wax na leen ndeysaan ci digg géew bi diggante ki nga xam ni mooy Ada Fass ak Zoss oho waaye maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu Bos Couture sama xarit bi Mansour borom AIBD paas bu bari la ma jox ne ma dawal Tiwaawan yàlla sa jàmm yaa ko borom taximan VIP bi loo dawalul baaxul waaye Augustin ñaari xale ci digg géew bi diggante Ada la ak Zos diggante mag ak xale la mooñ fi woo ndeysaan luñ tëgg mu neex ñoom it waa jàmbaar ay xale lan arbitre bi soufflé na oho Ada Fass Zos ndeysaan dimanche le 8 fii ci arène nationale journée jàmbaar production ngeen leeral oho ak Inso faqat Inso bu mag bi Augustin moo nekk ci caméra bi ñaari xale yaa ngi lewtoo lewtoo ba dig na ndax aada day dem ndax sos day dem waaye nañ ñoo yàgg waaye Boss Couture maa lay nuyu duma taay di ko wax fu ma ne yaa ngi sama wet ndey saanam waaye tey le 13 janvier diggante Baba Jaxal Ibu Afia woo woo woo woo yaaram aar la luñ tëgg mu neex saanam Zoss dagg na lewtoo bi taxaw aada aj na garde ba ca kaw nax day songu tànk bi jege na lool aada ndax da sexal Zoss hey aada dugg na ci garde bi génnaat aada door na lekk ku bu dal Ada dagg na leewtoo bi arbitre toogal oho Ada Fass Zoss Mansour borom AIBD hey Ada mbed na Zoss rëpp lay xaw hey Zoss jël na ko Ada Fass Zoss Ada Fass Zoss jàpp na ngeemu moom Ada Zoss am na ngeemu ñaari xale ya diggante Ada Fass ak Zoss Ada ak Zoss Ada jàpp na Zoss jàpp na Zoss am na ngeemu hey Ada fàq na ko luy xew dara xewagul Ada fàq na Zoss Zoss bañ na Ada Fass rof na ko tàng Ada Fass daan na Zoss Ada Fass daan na Zoss ko jël bu rëy gon ak Fass gi daan na gon ak Medina gi daan na oho xoolama waa Fass usik sen Ada daan na Zoss rëy daan na Zoss jël bu amul benn werante waaye Zoss dem ritewul ndax bëre na ndax am na luñ doon xaar gisuñu ko dog lay ci général ak geno